bàyyi mais bés bu ñu amee preuve ne yaa def dañ nañ la téye loolu moo loolu man man man ci sama raisonnement loolu moo logique mais amuñu benn preuve que ne defoo dañ lay yóbbu waaw léegi biñ ne amuñu benn preuve ne kii mais ñenn ñi dañ doon wax naa boo leen ko bàyyee mu daw hmm. man leen man maa ñëwal sam bopp benn am na benn commandant benn policier bu fa nekk sax hmm. yaa ngi dégg hmm. jaawa bi daal di tourné daal ne comme bool bi moo ñëwal boppam ba fii buñ ko bàyyi woon bu buñ ko woowee day ñëw. sans plainte. lu leer yaa ngi dégg moo toogee moo moo moo liggéeyewul noonu. Mhm. léegi comme noonu la. Mhm. te procureur nee na nan ko indil. Mhm. ko ko indil. noonu lañ la defeere waaw ñu daal di ma defeere ah. léegi bi ma defeeree ma daal di dem def retour de parquet. mooy central. ak tribunal ma def fa moom tam six jours. tribunal. waaw ah, nga def fa six jours. waaw ah, ak central. ndax damay dem yóbbu ma bu ñu xëyee huit heures dañuy yóbbu. tribunal léegi ñoom ñu ngi def seen enquête. Oh. ñoom itam. Oh. yaa ngi dégg. Mhm. ñu def seen enquête. Mhm. def seen enquête enquête mhm. enquête. ndax bi ñuy woo ñun rek boobu instant boobu ñuy woo du laaj. yaa ngi ndax boobu am naa un an. trois mois lan ma doo ko woowee laaj ma. un an trois mois nga am biir prison. Ah. ñu soog la woo. di ma enquête. laaj ma na ma yow mbir mi nan la demee man leen mbir mi nii la demee ak nii comme li ma leen wax nii rek. te man de gars yi ñoo ma woo sax ma dem benn waay ma nekk fi six jours xaw ma cinq jours benn waay ñoo fa ne man gis mooy dóor. jollen mo fi inde mo wa mon ma yow dama doon dóor ma ne ko man su ma doon dóor du ma sam bopp police ba dinaa xool sam bopp wala ma jéem a daw wala ma jéem a def leneen greffier bi mooy kii bind ci boppam daanam loolu moom dëgg la ndax nit du def ba pare di ñëw sinyale boppam voilà sans blague ni def ñëpp ñi jàpp leen dañoo daw ban jàpp leen lii su ne bi police amee ba wala leneen ak leneen am ba li mu ngi doog am ci sans blague ma mu doon loo xamante lu métti la métti ma ci sant yàlla nag waat tamit bu baax a baax a baax un an trois mois mais bi mu la woowee interrogé la enquête la après woowee enquête ma ne ma demal toog xaar waaw nga demaat ma demaat toog xaar ma xaar xaar xaar ba su may woo comme ay quatre mois xaw mhm. ma mois daal mhm. waaw ndax un an neuf mois un an neuf mois nga pirse waaw un an neuf mois lan ma doogoo woo ne ma gars yi ne dañ lay atte ma leen ah atte ñun ma wax man leen lan laa def ban may atte ne ma faa ñu atte la man leen ah ñun ma wax man leen kon baax na léegi ñu commencé ma dem premier jour ñu renvoyé ma mhm. ma demaat deuxième jour ñu renvoyé ma ma demaat troisième jour ci leen ma laajee mhm. ndax renvoyé bu ci nekk rek daanaka deux ans yi mu ngi manqué un mois laa fi manqué un mois il manque deux ans un an onze mois à pirsi nous ñu ma ne carrément yoon dara. nous la ne la dara. nga un an. un an onze mois. deux ans il manque un mois ah. nga ah. en prison nous la ne la yoon un dara. Ah. ma ne la a un un bi nga jógee ci sa deuxième défaite sa sixième combat dans l'arène sa deuxième défaite muy c'est diggante ak Boy Diogo boy école bi balagay Gaye bi nga cee jógee après nga am ay jafe-jafe àdduna pour un jeune benn xale bu ndaw nekk ci yoon nga dal ci ay difficultés yoo xam après mën naa ne dafa ante woon gars yu bari maanaam dafa doon loo xam ne métti woon nañu bari pour un jeune déjà rien que déjà ñi la xam déjà en tant que Assane Tall waxuma sax ñi xam mambal mais ñi xam Assane Tall rek dañu amoon problème

waxati ko de waaw ma ci santaat yàlla bu baax a baax ci santaat borom bi bu ci samay ñaari wajur ci loolu timit ci santaat samay xarit samay am di jàmm samay nit samay rakk samay mag samay lépp daal maa ngi ci santaat ndax métti woon na ci man na ci surtout say wajur surtout say wajur surtout say wajur ma hmm. hmm, hmm. ya ah, ah. ah, sama wajur du ma wax sax sama benn wajur sama wajur wu góor mom laay wax nu man sama xarit lah ndax tey jii li tax ma doon ci moom li ma doon ci bari ndax sama papa la ma albir ko doon papaam ndeysaan ah daf la di la ya yaa ngi dégg ñooy sàng ñu ngi toog lu yàgg mu métti torop nag ci moom mais da ngay ñibbi si waat dellu si waat ci ci affaire bi nu mu dikkee nu mu demee ndax affaire bi dikkee na dikkee boo xamante nii dañ naan natt bu la waree dal rek dina daal dal aussi cat bu la toppee rek musiba topp la cat moom fu mu dugg day yàq waaw li naan cat bu rayul rek semmal te sant naa ci yàlla tamit bu baax a baax ndax toog naa su ma ma ne dix heures ba onze heures mhm. ñu am benn waas yóbbu ko mhm. sama oto ci ci oto oto kii ngay liggéey benn ah, oto benn camion ah, camion camion suuf ci ah, ngay liggéey béton yi waaw léegi jour wala ñoo saate woon sax béton yóbbu ko mhm. jaxaay mhm. daal di ñëw ma ñëw gaare noonu daal di taxaw tuuti après ci laal siggee xool ci parabrise bi gis gaa yu wër benn gaan di dóor pour man xeexu mbooloo la ma daw si ñëw daane gars yi la la la la kii mu yóbbu. bagage su jàmbur daal. même bagage jàmbur. loolu nu mën a nekke affaire yooyu noonu daan na waay leen ko waaye di bëmax gars yi noonu xam nga. Mhm. di bëmax gars yi leen jàmbur bi loolu mënul ne affaire yooyu noonu. Mhm. bëmax daka am na benn grand boo xamante mu ngi toog fële. Mhm. comme ni ñuy bëmaxee rek. tamit xam nga daan na ma. gars yi daal commencé ñi doon dóor. Mhm. après gars yi cité leen ñu dem deux jours trois jours ñu ne waa ji noppaleeku na. waaw. léegi ñu doon dóor kenn ñëwul kenn xëy seetul. Mhm. man maa ngi xëy si chaque jour. parce que defoo dara. waaw kay parce que yow ti innocent. waaw yaa ngi maa mhm. xëy si chaque jour. di liggéey sama liggéey heure wàcc bu jotee ma wàcc. dem. yaa ngi fi ma daan toog maa ngi toog. heureusement sama patron boobu noonu bi ko policier yi di wàcc si sama patron mu yónni ma yaa ngi dégg léegi ma yónnee ma dem jëli xaalis gars yi wàcce fa ñëw laajte boo yi ñeen leen boo yi nekkuñ fi am na waa ji toogoon fële daan ne leen am na benn xale boo xam sa chaque mu nekk te moom ci ñu doon dóor ci la bokk est-ce que yaa dégg léegi gars yi ne ah, waaw léegi mu ne leen policier yi ne ko ndax nga ñoo jox numéro man ne leen aw ma numéro am de waaye su ma demee laajte fee dana ma ko jox mm-hmm. mu jox ko numéro ñu dem foofu laajte gars jox ko sama numéro mm-hmm. mu jox ko policier yi policier yi woo ma mm-hmm. mu yow la Assane man leen ngi dégg ñu ne ma kat dañ laa soxla brigade bu tëngeej bi yaa man man leen lan la lu xew parce que boobu xamoo xamoo ce qui se waaw mm-hmm. man leen lan la ba ngeen may soxla brigade Tëngéej bi ñu ne ma xale bi ñu doon dóor foofu noonu. Mm-hmm. daa mujjee noppalee mm-hmm. nga wax bu baax. ma daal di jóge foofu noonu. daal di ñëw ne sama patron mu ma waa ma ne waaw gars yi dañ ne dañ maa soxla brigade bi Tëngéej moom sama xam na ma. daal ne ma ah ma ko waaw mu ne ma kon demal. ma daal di dem wuy ji leen salaamaaleykum maaleykum salaam affaire yooyu ma laajte ana diw ñu ne ma bureau ngi ci kaw ma yéeg ci kaw ndax tey jii amaana kay ji ku def du def loolu ah, ah. ku non ku def day daw waaw ku def moom buñu la ne allo police waaw portable bi sax fa nga koy daw jéemoo jéemoo ut noo def man loolu assisté naa même ci reprise koo xam ne ba mu defee bañ ko rek police mi ngi lay wër dafa daw waaw waaw ah. yaa dégg man maa ñëw ba ci bureau bi yow yaa demal sa bopp ba foofu ñu ubbi moom man leen mën na diw noonu ngeen doon woo ñu ne ma waaw ñu ne ma ana diw ak diw man leen man fee ñu fooy liggéey bëri nañ mais mënu ma jàpp tur yëpp xam nga ñu daan ne ci ñu doon dóor ci nga bokk nee nañ nee nañ waaw nee nañ amul kenn ku taxaw volontaire ne man maa ne Assane moo dóor waaw kay mais nee nañu dégg nañu ñi doon dóor ci nga bokk léegi ñu daal di ne ma kon kon nee nañ ci nga ci ñu doon dóor ci nga bokk te gisuñu ñeneen ñi yow dañ lay téye man leen ci lan ngeen may fa fale ñu am ku ñu collé motif. waaw léegi comme noonu la demee. Mhm. léegi da ngeen di wax ñi nga xamante ne ñoo doon dóor. Mhm. wala ñoo leen wax ne ñu nga woo leen ñu yegg ci ma ñu ne ma kii ci la bokk ma xam. Mhm. yaa ngi dégg affaire bi dem ay deux jours trois jours ma nekk ko foofu rek ñu téye la foofu téye la fa deux jours trois jours waaw ma nekk ko fa léegi ma nekkee deux jours trois jours foofu léegi après ñu dem indi benn waay waa ji ñëw dèjà moom sax xamuma waa ji xamul waaw ndax ñëw na ba toog sam ma toog mu toog mu ne kii seen naa ko muy dóor gaay na ko kan xam nga mhm. moom muy joxoñ ñeneen ñi. su ko yaa ngi dégg. Mhm. ko eh